dal gi ak tey gi ak yar bi te li mu nett lépp doon lu leer loo xam la doxe woon kanamu sëñ Muntaxa ak sama kër ak yëpp ci sant bu baax a baax a baax eh, lépp loo xam ne waaye mi koy wut wute ko ci ak dal ak yar ak teggin dana am loolee dañoo wax ne doomu aadama lu ne mënees na ko booleeg moom sàgg ci ab sagam ba mu des yar ak kenn du ko boole kenn di ko sàgg ab sagam kon jërëjëf yal na yàlla kàddu yi nag moom dama koy gàttal ndax Mamour mii moom laa jox kàddu ju tey dana wax ci turu sëñ Muntaqa dana wax ci turu Soxna Bali ci loo xam ne maa ko ci jox ndigal mu yegge leen ko waxtaan ci ak yéen maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp jërëjëf kon maa safinatan bi kullil janna min daaratin ni yaasal min ataaniyal marka bu fii daari min na min na la ni daari bi nu sante yàlla julli ci yonent bi di sant Serigne Touba ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér naa li mu naalal lislaam naa la ko Sëñ Tuubaa ànd ak sa bopp mu ànd ko moom ñoo ngi siyaar kilifa yëpp di ci jiital Serigne Maam Thierno Mbacke mii toog moom Cheikh bu nu ko nuyoo nuyu mbokk mi baax yi mu dendal Serigne Khadim Mbacke moom di soxna Khady Assoufal ak Serigne Moustapha Mbacke. moom Serigne Cheikh Astou Fall mu Cheikh Mamadou Basir ak mbooleem njaboot gi fi teew yépp nuyu Serigne naa buso ak Serigne Mouhamadou Fadilou Bousso mii toog ñu gën koo min Serigne Fallou Bousso Tamba mbooleem seexi sëñ Touba yi fi ne buntu kër yi bari wala li ci ëpp ñi ngi fi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ndax bi sëriñ bi wootee li wooteem bii di tas daaray baayam ja di wax ni njàngalem kese moom dañ ko weesu léegi dañuy wote ci imma ñu baree nga fa woon ña fa des nag nangul ko loolu raw nañ ña dem te bañ a toog kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaare mbooleem seex yi ak fuñ ci mën a bàyyikoo ci mbooleem buntu kër yi siyaare nañ ñëpp jox leen ne wàccuwaay wi sëriñ maam Thierno nag mi ngi sant mbooleem waa Gabon góor ak jigéen mag ak ndaw ndax cant gi li ci jiitu nee na cofeel gi ngeen am ci moom ba lu mel nii bi mu amee li njaboot gi yaatu yaatu ngeen taamu jëmmam ji moom it bi ngeen ci waxeek moom ne ko danoo am yéen nga ànd ak ñun liggéey ne man de xawma dara ci sama bopp moom ma sama bopp damaa am kilifa te moom lay déglu moom nag lu mu wax danaa jëfe loolu mu jël seeni kàddu seeni yéene yóbbu ci Cheikh Mouhamadul Mountakha waaye sëñ taxaa ci ngor gi ci pas-pas gi ak ci murit gi xam ni lëggeel sëñ Touba moom ku la ci woo dalaa bëgg a dimbali mu jox taaw mu baax bii ndigal ne ko lëkkale naa la ak waa Gabon farale naa la ak waa Gabon dendale naa la ak waa Gabon maam na mu ne ko Mbàkke mu ne ko nekkal ma Gabon te nga yóbbaale fa sama jëm kon nag loolu nee na moom yéen ñi ko defal tawféex googu. ba mu am loolu ci sëriñam boobu di yaakaaram nee na kon yéen it amul seen pay ndax lii nag liggéey la boo xam ni sëñ Maam Thierno nee na moom de sant na ci sëñ Touba ndax buñ nee 7 juin 63 lañ inauguré jumaay Touba ña jàppante liggéey ba te te defoon ca seen alal jàppale sëñ Fallou ci loolu ba loola taxaw ñoo ne loolu ñu amoon keneen duutu ko amaat jumaa ju fi judduwaat it du tax ñu ne jumaay tuubaa maa yenn woon xeer ya maa indi woon feer bi. maa defoon lii maa doon dajale sas wi maa demoon ndog jàppoon naa ci liggéey raay ba yooyu moom amatul faat na kon nag day am yooyu nag di ci ay liggéey sëñ tubaa nga xam ne liggéey la buy tàmbali mu leer na ni yow boo ci feeñee dootoo nëbbu te bu xasee ba am ab xarnu dana ñëwaat ci kanam ñu koy waxtaanee naan ña nga xam ni ñoo defoon caravane bi ci maa yomba liggéey lu tax maa yomba am jumaa lu tax daara maam jaare ne fi lu tax institut ne fi ñu naan xale yii maa yomb dañ mokkale alquran ana ku sos loolu ñu ne kat Serigne Koso Mbàkke moom Sëñ Muntaxa moo àndoon ak waa daayira Gabon bi ak sëñ naa bu soog ña ca aju ñu taxaw liggéey boobu ak ñoom sëñ Seex Meng ba mu agsi fii sëñ Koso nee na loolu kon taw féex la bu rëy nee na loolu nga wax it ak liggaay yi bëgg nee na moom dégg na ko de waaye nee na moom mii toog du ci jéem dara du ko fi yebal bu demee ba ca moom dana wax ak moom. te kooku rafet na njort ci moom ni bu duggee ci noppam ba mu ñaan ci li ngeen bëgg dangeen ko am na ngeen ko bëggee nee na kon nan dalal suñu xel bu baax sëriñ bi daal mi ngi nuy soññu ci ñu gën a góor góorgóorlu boole suñuy pas-pas tëng ko mu doon benn nee na nag loolu ñu wax ni nañ boole xol yi nee na ñaan googu moom Sëriñ Tuubaa ñaan na ko te yàlla na nangul na ko kon képp koo xam ne jëloo sa xol dugal ci sa morom def ko ni sa bopp lay yéex ci yow day yéexee waaye liggéey bi moom ku mu dem ku puusul mu dem ndax wajal xulubana ala tawadudi bila tanazuhin wala taxaasudi wala taxaasumin wala tadaaburi wala tabaxudin mi wala tanafuri xataa a muslimina xaasixin wal muminina muxlisina saalihin ñaan googu bi ko sëriñ bi ñaanee ci ñun nag yàlla nangul na ko ko kon ku ci tardé mbaa nga yéex yow ci sa bopp la murit bu ne nag li mu yéene boppam lu metti metti na ko yéene moromam ab nawle nag nit du ko wutal boppam ci liggéey sëñ tubaa Cheikh Ibra Fall dafa ni ñëwee kër sëñ tubaa aw ma fa nawle te wutalu ma ko sama bopp loolu nag boo gàttee dégg da nga naan nawlewul kenn waxul loolu de aw ma fa nawle mooy jàpp na ni ëtti bépp moo ko war a bale amul su ma balee fii ba fee Seex Isaa jël fii ba fii sëñ Daaru Asan jël fii ba fii nee na moom damaa jàpp ni lu fiy liggéey man képp maa ko war a def maa war a root maa war a bale maa war a taxan maa war a joxe àddiya daane ñàkk ma fa ñàkk wutal sama bopp nawle nag moo may lii ma xam tey kon kenn ku ne ci ñun sëñ maam Thierno nee na liggéey bii bu ñu wutal sa bopp nawle jàppal lépp luy def maa yomba yaa ko war a def caravane bi yaa war a jiitu yaa war a gën a sonn yaa war a gën a joxe addiya yaa war a ëpp pas-pas ba keroog bu liggéey bi taxawee bis bu ñuy séddalee añ yi nag nga xam ne sëñ Tuubaa liggéey bi nag boo ci nekkee sëriñ bi nee na boo dee séntu pay gi nee na doo ko gis da nga ne sëgg ndax pay gi doo ko wëri da ngeen di daje sëñ bay jaxate dafa ne bàyyi la bay te muñ a muñ ngir ñi lay toggal añ baykat bu ñu toggal añ nag moom na yittewoo rek mbayam yow newal ci liggéey bi li pay gi moom da ngeen di daje te sëñ bi lu mu ñaan yàlla yàlla defal ko ko te moo ne wax di xawaa ija lësiina daamu fii xidmati waxam la ko maanaam ñi koy firi nag daamoo gi dañ koy bàyyi sëñ Tuubaa neewul yàlla fajoon aadi ni may la gën ñi ci sax la wax ñi ci sax mooy dañuy sëñ bi dañuy sas ñu joxe suñuy xari ki bu ñu ko jógee at tam itam xarit ñëw karawaan maa yomba jóge faaj màggal Tuuba jóge ci dem gàmmu liggéey bu jeex ñu naan beleen waccaru ñu koy fekke ak murit du wàcc doy na sëkk nag murit boo xam ni jéem ngaa wàcc wala bu la sëriñ ne jërëjëf nga defee da ngaa war a teg sa laxasaay maa yomba ji xam nga teg fenn moom képp la woon kenn la du ko der kenn teewlu ko satala mu ne sab laa dimal xamidu kenn danaa ba dal xam yooyu yi matte fii ba léegi ñu ngi matte te yooyoo ko daan matte te moom daawul am seng-sengu wokkatu gis nga fii ni mu mel ak ni mu mettee mu nekkoon fi moom tundum ngir lan suñu taw feex ñun liggéey boobu mu liggéey nag ba kenn ku ne ci ñun nga am ci taw feex am ci xéewal yaatu ba di ko sant saa su ne moom day bànneexu wu ci fekkee wu ko nguuru wu ci 10 août 1895 ko mën a woon indi ko génnee ko ca këram ga ba 19 juillet 1927 bi mu fay delluwaat mooy bi muy ñibbi ci boromam kon moom amul noflaay benn yoon dundam gépp jaay na ko boromam te jaay gam ko jaay boromam mooy sunu taw feex kon si sa neex ñu gën a soñ ñu gën a góorgóorlu ci liggéey bi te xam ni liggéey bi rek moo fi ne lu jeex ñu naal beneen li liñ ci yéene daal nee na kenn ku ci ne li nga yéene ci sa pas-pas wax ne am naa yéene def ko fii ci maa yomba nee bu soobee yàlla di ko def ndax sëñ bi moom lu lu ko waay yéene rek di ko ko defal ab murit nag war da wax déedéet buñ ne woon bu subaakat Libreville gépp murit dañ ko war a moom yow boo xasee ba ne déedéet rek yow bokk ko ci ñi ñi ko war a moom ab murit danaan waaw ba noppi doxe ak yéeneem sëriñ bi katandu ko lii nag doonul njàmbaaru kenn ab murit lépp loo defal sëñ tubaa rek du loo ko dimbali loo ko jàppale waaye da gattandu ñaanu di sëñ tubaa kon gàttandu googu nga xam ne nag am nañ tawfeex bokk ci ñi gàttandu ñaanu sëriñ bi sëñ bi nee na leen ci sant yàlla kàddu yi nga xam nit moo bàyyi ko woon ci soxna Bali mu tegoon ko ci loxoom moom mii nga xam ni moo fi jëmmam di fi jëmmi sëñ bi noonu mu ko waxee rek noonu nee na moom it mi ngi leen di sant ndax tawfeex yi ngeen ko defal jël bis bu toll nii tànn ko ci biir njaboot gi génnee ko moom ne ko bis bi jox nañ la ko nee loolu doy na sëkk tawfeex ndax bis bi nag moom bisu pajug aajala yàlla gu wóor a fi ne amul noflaay ay coono rek la te coono yëpp it coono bànneex la sëñ maam na mii noo àndoon màkka bi mu jugee màkka ak léegi matagul ay ayu bis te bamba day bee ca Amérique ña ngi ko fa doon xaar ba këyitam yàgg génn lépp lijjantiku ak délégation bi mu war a àndal waaye da koo teg ñëw Gabon bi muy ñëw fii du ak manam te xam naa ne ay coonoom it mayu ko ko wir gi dëggi dëggit mayu ko ko ngeen ñaanal ko sa borom dolli ko wir dolli ko kàttan may ko gudd fan sëriñ ak murit bokkul te taalibe yi sëgg nañ waaye seen xel yi sëggul kii moom ab murit la kii toog ab murit la saa bu xëyee suba ngoon gu dégg bëccëg ngërëmal sëñ tubaa rek lay sàkku mi ngi ci tey sëñ bi takk laa saa yi boo ko neexoon ne sama baay mooy xalif général des mourides toog këram ku siyaar sëñ bi jabal ci moom yëkkati àddee jox ko waaye deful lool de moom waar yi moo ciy jiitu te Seex Faal dafa ne woon yaara mbay mu ne ko faal mu ne ko ndax xam nga lan mooy jëwriñ mu ne ko boon ci dimbilee ñu jël mu ne ku ñuy jiitu ca waar di ko ca mujj rek du ko ab jëwriñ ñooy njëkk ci ñëw gii nga ñëw maa moo mënoon ngaa toog Libreville na ñëwoon naa daaw yabal seen Moustapha Cheikh ak seen xaalim ba soxna maam Fatimé te bu ñëwee toog fii it dañ naan sëñ koso nee na te ko di ko dindi ndax yaa nga Libreville waaye nag 1600 kilomètres ci aller retour yi ku ko mën a ñëw ba toog fii ak coono yi nga tegoo loolu Mbàkke nag nun ni ànd ak yow it du tee it danañ la sant gërëm la sunu yaakaar gën naa dolliku sunu xel gën naa dal boole gi nu sëriñ bi boole ak yow soxna Bali boole nu kook yow wax dëgg yàlla nun am nañ ci rafet njort yàlla na la yàlla yàggal may la gudd fan may la wér sëñ Maam Thierno na na it sëñ Moustapha Seex mii mi ngi fi moom demagul sëriñ bee ko fi yabal ak sëñ eh, Isaaxa mu ba Basiiru mi sëñ bi dénk liggéey soxna jaara bi ngir nu ne fi nee na dana duggaat ci kër yi def porte à porte dajalewaat soxna yi ñu waxtaane nag liggéey soxna jaara soxna jaara nag sëñ Tuubaa moo ni boo ñëwee fekk ma fa mbaa boo toogee ma fekk la fa kon liggéey sëñ Tuubaa nag soxna jaara dara ko cee gaaw kon sëñ Moustapha ngi noonu sëñ bi nee na yéen a ngi noonu gën na leen a boole waat ak moom gën leen jaxase ak moom soxna maam Faati Mbàkke mu sëñ si Astu Faal sëriñ bi nee na mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm nee ndax bi la sa bàjjan yebalee ne la boo demee ci sëñ koso nga bàyyi koog lépp nee na yow bàyyi nga koog sa lépp lu jiitu soxna si di la yebal boo gisee délégation yi mënoo koo xàmmee mooy lii du fii lañ ko créé dañ koo togg ca daaru minam doon fa benn takku di benn say sëñ koso di taawu kër gi bu nee dama ni ñu xam ni sëñ Muntaxa wax bu nee dama ni ñu xam ni soxna baalee wax moo tax bi ñu ñëwee fii dara soppi kuuti loolu rek ci lañ ko tarixatu ànd bi rahmatul sax kër lu wal nabi wa tawakkul kabir koy xaalu saamanan wa tara kaan yorom musalan li xaaja wax di loolu li laay tilkal xaaja kon nag sëñ Fallou Bousso ah yow la ñëpp di déglu damaa bëgg na kenn ku ne boo dendee ku doon nelaw boo ko yeewee yàlla na sëñ Tuubaa faj sa aajo bu ko defee nu nu ñëpp jóg toog waaw nañ ñëpp jóg toog ñu xam li nu fi dajale waaw bërki démb nag bërki démb bërki démb ca livre Libreville sëñ Fallou dafa tàmbali waxtaan wu am solo waxtaan woo xam ni ah keroog defe naa ni salle bi kenn ku ne am nga loo yëg keroog nag da nga koo tàmbalee ci ay yaasamini laaw inda jeewali iblis is naa day toxoo bi yaawali nafaali xayr laaw xablu fi ndari bi ahli badrin usuli ka dari nafaali xayr laaw fi ndakaaru ku laasani jaruhu makkaaru allamani rahmanu fi safina bi annani haddi musil madina bara anillahu lada konakiri min kulli jaalibi ilal manakiri asxaba anillahu fi karambasa xablu mubaris wa ani xalbasa daxaan rahimu inda dawmi loxoo ma ahna ani tasawumi yasaralil muna lada limbër wali man xaadali ma haaba an kulli wali kero da ngaa toj Libreville tasaare ko bañ dégg ko lii xaadax li badru usuuda man za zaxal waasiya wal xasuuda yaqudul xëy su akuna laaw tabsira laay laay la laaw saaxali xëy laaw fii maa yumba ni sëñ Fallou nag ñoo ngi maa yomba dox ma ko nee na sant na ci yàlla bu baax nee na bi mu yëree mbooloo mi xool leen daa am lu sama xel dem nee nee ma bëgg leen koo nettali ngeen bañ a xeeb mbooloo mi nee na ci ñaari nettali la benn bi maa ngi ko jëlee ci sëñ Abibu Mbàkke nee na sëñ Abibu moom defe naa mag la nee Cheikh Modou Moustapha màggal gi mujjee woote. nee na te moo mujj law ba doon màggalu Tuubaa gii donte du woon bis bi nee ndax boobu màggalu jumaa ji rek la woon dan dan daje di waxtaane mbirum màggal gi di ca sasu tey bay sas yi nee bu noppee rek nit ñi delluwaat seeni kër woote na ko nag ay yoon doon soppi bis yi ba bi Cheikh Mamadou Fadel dikkee moo soppi bis bi nee nag màggal ji nga xam ni moom la sëñ Modou Moussa mujjee màggal ba mu dajalee kilifa yi ci ak ron ak garab la leen dajale benn garab gi daane woon ci biir jumaat yi nee daggagun ko wala mu ne ci wetu jumaa ji nee na waaye daal ci ak ker lañ toog ci waxtu yor-yor mboolem kilifa yi màggal si daje fa nee na te ker ga feesul nee ker ga feesul loola nag moo tax bu ngeen xoolee ci jotaay bii tey nee na bu ngeen xoolee ca jotaay booba du ngeen xeeb seen jotaay bii. waaye bu ngeen ko xoolee ci màggalu Touba tey nag nee na man ngeen koo xeeb nee kon na ngeen di xool ca ca loolee nee bi ci des nee Cheikh ba Bassir guddi gi mu njëkk a fanaani Poroxaan tuddee ko ak màggal ci ci ron ak garab la fanaan nee na waxuma yendu de ci ak ron garab la fanaan làmp yooyu ñu daan def pétrole te di ko def ci potub gaas mu def ca pétrole la def ca mees moom lañu wékk ca kaw garab ga di ko niitoo nee ñu fanaan fa nee na te ña fa fanaan ëpp ñu juróomi nit nee nee na ñu di fa jàng alxuraan di fa jàng xasaayit di fa di sikkar ba bët set nee na di ko def ca wetu soxna jaara nee na te ker garab ga nu fanaan nee na ron garab gi rek amul ker ndax guddi la nee na fanaan na ba bët set nee te garab ga xat-xat wun ko nee feesul nee kon boo ca xoolee doo xeeb sunu mbooloo mii buñ ko xoolee tey jii nag ci màggalu poroxaan nee na danañ ko xeeb nee na kon ne bu leen ko xeeb nee bu dee taxaw nañ ci niñ ci war a taxawee woote ko niñ ko war a wootee nee fépp woote di àgg ne incha allah dana fa àgg nee dama xool la mbooloo mi rek yërëm leen nee na nee na ma leen koy defalee rek wasalaamaaleykum jërëjëf Mbacke.